te ci teg nag gëm bis mu ñaan yàlla fegal nu mboolem tiit ya nga xam ne moo cay am gëm bis penc moom ngay gëm ne ni ko yàlla diggee faaw rek mu ñëw te lu ñëw lu ne mook lu ñëw ba noppi ñooyam su ko defee ne moom day kumpa lañ ca mën a jàpp rek mooy li yàlla wax ci alquran baa yonante bi wax ko ci addis ne moo cay xew loolee kon nga gëm ne lu ama am la te lépp dana ñëw lañ ci njëkk a tudd nag mooy nekkalee mboolem ñi deexoon kenn ku ne génne ci bàmmeelam looloo jiitu ci bis penc bu mag ba ndax dana leeral léegi ne bis dañ koy def ñaar bu ndaw ak bu mag bu mag bi nag moo tàmbalee ci mu yàlla walloo bufta bi waluk dekkal gi kenn ku ne dekk génn ci bàmmeelam ñëpp rek ñooy dekki kenn ku ne génn wala moo tudd an nashru su ko defee nag ñu dajale leen jëmale leen ci benn béréb ba nga xam ne fa la ñuy war a pencoo dajale googu jiital leen leen pang mooy alxashru bokk na ci mbiri bis penc balaas bi nga xam ne ci la peesee jëfi jaam bu ne te balaas bi du bàyyi dara dara lum tuuti lu toll ne fépp bàkkit sax day feeñ ci palaas bi koo xam ne jëfi yiwam ma jëfam yu baax mu ëpp mu bokk ci ñuy texe ku jëf yi safaanam ëpp mu bokk ci ñay texee di bu ko yàlla dabaatalul ci yërmandeem koo xam ne ay jëfam yu baax ak ay jëfam yu bon moom mu dem fa wax al araf nga xamne al araf ab lak la nee bu dox digënté aljana ak sawara neexewul ne aljana naqarewul ne sawara ku ay bax baxam ak yi bon bonam yemo nee ci lay dem ak lu melni ne yonante bi ñukoy tuddé ak kawsar sar muy déeg bo xam manam nanu teranga go goo yalla ko jagalé yonante bi xéetam wi di ca naan te ku ca naan do marati muk-muk, lay tax na ñu may jaam bi mu naan ci mooy mu gëm ba noppi saxoon ci sunna waaye ku weddi woon mbaa mu nekkoon ci bidaa bu dikkee bëgg naan dañ koy dàq ba tey àjjana sawara lu ci nekk luñ war a gëm la ndax lu ci nekk alquran da ko tudd hadis tudd ko sawara mooy kërug tiis ga nga xamee ne yàlla nga ko waajalal ña weddi ak ña daa mooy te jéggalu leen àjjana ci këru xéewal ak teraanga mu jagleel ko ña gëmoon te daa rafetal ak ku daa mooy ànd gëm ga daana mooy waaye yàlla jéggal ko ba tey kooku àjjana lay dem ak siraat bokk na ñu a gëm siraat day firi aw yoon dañoo wute nag ci siraat boobee moom lu mel dëgg-dëgg waaye maase nañ ci gëm ne lu ama am la kon da ngay gëm jëmmi siraat ci boppam gëm ne it jaam ñi daañ jaar ca kawam ku jëm àjjana ak ku jëm ca sofaan ba te kenn ku ne na gëmam ak jëfam ju sell toll woon rek la cay gaawe dana am ñi ci gaawe ne xefa xippi am ñi ci gaawe ne ak melxat am ñi ci gaawe ne ngelaw ni muy gaawe rekk daal ñu wute ca lool kenn ku ne na pas-pasam ak jëfam demewoon rek noonu la cay gaawee am ci ñoo xam ne duñ mën a jàll dañuy daanu fekk nag siraat mi ngi tiimoon sawara ñu daanu ci sawara wa mu far doon seen kër bokk na ci ngëm itam xisaab ji metti ji nga xamee ne moom la ñuy xisaab ñu yàlla defalul tawfiq ne sax nee nañu ko yàlla xisaab dëgg-dëgg moom doo mucc waaye nag da am ñum yombalal seen xisaab dal leen di jéggal waaye nak ko hadis ba waxe kuñ gëstu dëgg dëgg seen mbir baña bàyyi dara dara doo mën a mucc xisaab jooju day lu doy day waar dana ko waxaat léegi gën koo leeral ak ràmm gi yonante bi ramoo ak ñeneen sax ci yonante yi ak ñeneen sax ci yi ràmm googu lu sax la ramu mooy tinu am na xeetu tinu boo xam ne yonent bi ci boppam la ko yàlla jagleel mooy buñ taxawee ci pénc ma taxawaay bi yàgg lool metti lool ba daanaka àgg nañ ci buñ leen jiitaloon yóbbu sawara it baax na waaye taxawaay bi moom doy na sëkk yooyu jamono ñi àkk yonante yàlla aadam aadam joxe ngant yebal leen ca noox noox joxe ngant yabal leen ca ibrahim ibrahim joxe ngant yebal leen ci isa isa joxe ngant yebal leen ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa bi nag moom la yàlla may daraja yi mu ñaan ko tin jaamu yàlla yi àtte leen ba pénc mi tas ku ne dem fa nga jëm yalla nangu am ci lom dal def lolu moy ash ramumu al kubra ramumu gën ma mag mom lañu jagal yonante bi ram bokk tak mom nak yonante yeeg gaa bax yépp dañu koy def mbugal gi wax itam mo xewal lu ci nek day am ca foofa am nañu yello xewal ak teranga am ñu yello bugal ak ñu ci nek jot lañu di lepp ngir bis penc la li ñu wara gëm mu del war nag ci hisab jim tudon legi rek regle ñi regle kenn ku ne ay mbiram buñ dé hisab doomi la ne duñu xeb dara lum tuti tuti, lu toll ne xitmiir mba fatil mba naqi sax des ko xeb ci lu baax mba ci safan ba ñetti dañoo xawa naqaree xam ci langu arab te ñoom ñëpp ñu ngi ci doomu tàndarma mu teqale ko ne an naqiir kaw kem bu tàndarma ba day am xóot-xóot boo xam ne moo cay nekk xóot-xóot soosee moo tudd naqiir fatil moom day nekk ca biir kemb ba maanaam wëñ nga xam ne mooy tëdd ca xar-xar ba xaw a nur as karan xaw a nur as moo tudd fatil der wu weex wa nag moo tudd xitamiir yett yi li ñuy tuuti tuuti buñ dee seet ab jaam di gëstu mbiram dañ ca xeeb dara ba bàyyi ko daañu ko seet bu dee lu baax ñu wan ko ko fay ko ko bu dee safaan bay duñ ko ko jéggalut noonu mu tombeeg la laaya ba wax ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin sharran yara mu ne it maanuteg yàlla àgg na ci la yàlla sàkkoon mu amoon béjjën daan daan ko amul béjjën dañuy teewal mboolem xar yeeg bay yeeg ya amoon i béjjën ak mboolem li yàlla rek ci xeeti njaay àll ñu fay waxante ba àggal nag yàlla suuf ndax du ñu dem àjjana mbaa sawara waaye daañu teew nag ñoom rab yi ba kenn ku ne fayu ca moroom ma nga xam ne ka amutoon béjjën ka am béjjën daa ko daan dañuy saxalal ka amutoon béjjën béjjën dindi béjjën yi ka amoon i ndax ka amuteen béjjën mën a fayu ne loolu lépp maandu teg yàlla gu métti rek moo feeñ foofu bu yàlla defee noonu ci diggante rab yooyu nga xam ne amuñu woon xel bay xam la ñuy jàpp ko bàyyi rawante ne kon diggante doomi aadama ak ma nga xam ne xamoon nañu lañu war a jàpp ak lañu war a bàyyi sëñ bi nag dellusiwaat ci boppam ni man day sant naa yàlla lool ndax xisaab na ma ba noppi fi ma jaar mooy sama xisaab amatuma bu ëllëgee lu yàlla seet yàlla defal na ma sama lépp di aw yiw sama lepp di tuyaaba sama lepp di ngërëmam bu ëllëgee amu dara lu muy seetati ci sama bir man ci sama bopp loolu sant naa ci yàlla lool loolu taxal mu ne borom daarul moxti yi neel taalibe yi ko bindoon sax leetar leetar baa ngi fi bu ma benn taalibe yëtati daray alali àdduna te fekk mu amee bor maanaam amee àq ju mu war ndax mu ne yàlla xisaab na ma ba àggal te bëgguma bu ëllëgee muy xisaab koo xam ne man maa waral loola ndax mën la yotoon alal joojee kon nag xeetu borog àq moom mat nay moyetu lool lool bor nag moom dafa diis ba àgg ci yonente bi ci njëlbeenam sax ku masaa amee bor bu faatoo du ko nangoo jullee lu may kenn wax ne gàddu naa bor bi maa koy mu door ko nangoo jullee gannaaw bi lislaam taxawee ba dëgër nag ba ñu amee alal ju lew ji bàyyikoo ca yéefar ya la tàmbali ku faatoo te jullit ñi bàyyi ay bor moom yonante bi moo koy fay jullee ko moo tax kon lépp lu aju ci bor ak àq rek ab taalibe ab jullit war na koy daw bu baax a baax la mu man li am solo rek mooy taalibe bi di jéem sellal ba lépp lu muy am ame ko ci anam gu set wecc gu dara sikkut gannaaw ba nag ganaaw bu fayee bor yi ak àq yi mu amee yépp nag lu mu ca jox sëriñ bi rekk boppam la ko dawalal foofee te sëriñ bi moom nawul ab junni xeebul dërëm ndax yàlla rekk tax muy nangu nee amna am bu sun maam cheikh ibra fall dafa andi woon ab junni am ko bayoon amul ca mbay ma lu may benn dërëm mu andi ko ñu tase fa sëñ bi ne dërëm bii wecc na junni bii li ñuy fay borom junni bii la ñuy fay ki andi dërëm bii ndax ki andi dërëm bi yéene woon na ab junni te man lu ma waay yéen rek lañu koy fay dafa wax ne bis penc nag dañ koy def ñaar bu ndaw ak bu mag bu ndaw moo tàmbalee ci deexuk nit nit ku dee rek bis pencam bu ndaw taxaw na la dale foofe jaar ca bàmmeel ba ak laaj lañ ko fee laaj bokkee ci ña laaj ak mbugal ga mbaa xéewal ga dund bar sax loolu mooy bis bu ndaw ba nga xam ne kon boo gëmee bis rek dal ngay gëmale dee ak laajum bàmmeel ak mbugalum bàmmeel xéwal gaag mboolem lu aju ci dunduk bar sax googee bis penc mag nag moo tàmbalee ci bu yàlla walloo bufta bi waluk ñaareel ga nga xam ne mooy dekkal lépp lu deewoon nee ñu diggante ak wal gu jëkk nga xam ne mooy tukkal àdduna ñeent fukki at lay doon kon bu ñu walee waluk ñaareel gi ba lépp lu deexoon dekki foofa la bis penc boobu tàmbalee mooy bu mag bi mu ngi yem nag ci bu ñu pencoo ba penc ma tas ñay dem àjjana dem ca ñay dem ca safaan ba dem ca loolu la ñu tuddee bis penc bu mag mu nag li ma jaayanteeg yàlla yàlla bu ca dara tebbiku mbaa boog nga ne dum ñaan day xibaar ka sant ne lamu mu jaayanteeg yàlla dara du ca tebbiku